acca jërë ngeen jëf mbokk yi xam ngeen ne nag léegi ñu àgg ci cappaan gi bu doon garab la ñuy yéeg léegi ñu àgg ci ñu bax la combat bii mooy dernier combat spécial di combat ba nga xamante ne bii diggante Modja bu Yoff la ak Dame Sène bu Parcelles Mbooloo maa la ko wax arbitre ba ngay laaj ay sixième ndax pare nañu Modja Dame Sène Modja Dame Sène Modja arbitre souffle na waaw ñoom ñaar ña ya diggante Mod Dia ak Dame Sène Mod Dia la ñu jàkkaar lool Dame gannaaw waaw waaw cey bi combat ndeysaan Dame Sène Mod Dia Dame Sène Mod Dia ñi ngi déglu dafa mel ni combat bi dafa bari calcul dafa mel ni combat bi dafa bari calcul Dame ak Mat Dia Dame Sène a ngi jiital tànku ndeyjoor Mat Dia jiital tànku ndeyjoor ñu ngi dégluwante di lewaatoo lewaatoo bu xaw a diit say jàmbaar production kenn du ñoom suñu jógee ci combat bi ci grand combat bi la jëm gis naa mu ànd ak Mamadi Ndiaye ànd ak Père Mbar Tine arbitre soufflé na arbitre baa ngay ak ñoom diggante Dame Sène ak Modja waaw waaw attention door jàpp ñi ngi déglu wante arbitre nee na ngeen bëre deux minutes de wàcc na lan la bëgg daam miime na léegi def demi flexion sëggi siggi taxawaat normal daam ngi def ay déplacement dagg na lewaatoo bi taxawaat Mod ngi ne tekk di ko déglu bu ñu dajee war naa mën a jeex ñoom ñaar ay ndaanaan lañu gis nga daam cokkaas na droit dafa nat loolu natt la daam seen Mod Dia arbitre soufflé na nee na ñëw leen ci biir géew bi sey ndey faatu aadama Jalli avertissement pour Dame Sène avertissement pour Modja ñoom ñaar ku ci nekk am na avertissement waaw waaw diggante Dame Sène ak Modja Dame am na lu mu bëgg tibb na suuf diw ci tànk ya Modja cokkaas na droite tooñ na ko seen mot ja door bu dal amagul jàppante amagul ñoom ñaar dañuy lewaatoo rek gis nga mot ja na mais dalul ndeysaan cey la diva ndey Fatou Adama Jali yaayu la lion ndeysaan sama rakk ja nekk Mbour géej jigéen la wante jigéen ju góor la diggante Dame Sène ak Modou Dia gis nga mel na rek ku màmm léegi Modou def deux pas de recul waaw waaw Modou ngi cokkaas. yaa ngi cokkaas ja Dame Sène attention eh lay laa xelal na Dame door na lay laa ja fayu attention oh oh ñoom ñaar weccoon nañu ay coup arbitre soufflé na arbitre soufflé na am na ardo attention ardo Mod ja da ngay dem ardo Mod ja demar ardo Mod ja dem na ardo laaj ndox na rocc bi solaat wax ak ki ci banc bi nañu daan na ko mot ja daan na daam seen mot ja daan na daam seen mot ja daan na ko laa ilaaha illallah mot ja daan na ko oho cey mot ja na daam seen laa ilaaha illallah combat waar mais mais jombi na xool ko na mu tooge ma ngay jeex boo daanoo da ngay wéet ana ñi mu àndal waay ana ñi ànd ak jël si leen ko Dame Sène jóg na ma demal boppam. alhamdulilah. Baye Ibra kontaan. ñu gis la nga daan mépp Keba Kanté lu oh, ma ñëwee bëri kay ñu gis nga daan jël même kenn du moom ah de à partir euh, démb de 23h à 3h du matin ñoo nekk li mu ñàkk si combat bi mat na ay millions. bilaay lazi. moo jël seul yàlla ah, si kanam loolu bi bi nga jógee Ardo. alors ñàkk a la rek. ñàkk a xam la rek. mais bi nga jógee Ardo loo yëg. bi nga waaw bi nga jëlee ku jógee Ardo. dama dama dama jógee Yoff yor ñaari oto benn oto bi jiitu si kanam dafa def tonneau daanu xalangu ñun ñun ñu ngi. hôpital voilà ñu ngi toog di ma xaar ma gaañu duma nangu ñooñu gën maa gore waaw.